cette affaire que nous vivons est extrêmement loin nek affaire u Adji Ousmane Sonko jóge na foofu yàgg na depuis Salem. nous faisons face à un banditisme d'État bo xamanteni nak lenn kese kese moko ñor li ko ñor moy li nga xamanteni motax moo tax moy li nga xamanteni moo tax ñu rey Mariama Sagna ak Kër Massar mooy li nga xamante ni moo tax ñu attaqué woon suñu siège au niveau Yoff vandalisé ko gaañ na fa nekkoon li ko waral bokk na ci li nga xamante ni moo tax Ousmane Sonko ñàkk liggéeyam ñu toroxal ko bëccëgu ndar kàmm un fonctionnaire qui a passé toute sa vie servir le Sénégal dignement génn wax ne pandant fukki at ak juróom yi ma servir Sénégal ku ci gis fukki dërëm bu ma lewal bu ma bu bu bu ma jël moom moo ko teg ma ci kaso bi ñu torox ko ba toroxal ko bëccëgu ndax kàmm li ko waral tax na ñu créé fii un soi-disant euh, euh, euh, affaire sur bu te xaw ma rey ci wala fàtti quatorze bakkan ay ndaw ci ay homme de tenue naan dañoo réer

dello ci Sénégal ci loxo sénégalais yi Sénégal à travers les sénégalais waye fexe ba kom kom bi bénéfice bi dello ci Sénégal ce projet bi nak tax Ousmane Sonko ñàkk liggéeyam tax ñun ñep ñu toroxal ñen ñi tej ñen ñi kaso ñi ce projet aboutira en 2024 avec le président Ousmane Sonko au palais incha rabbi li moy en réalité li nekk en jeu. Lui moi en réalité en jeu la candidature du président Ousmane Sonko voire l'invalidation de la candidature du président Ousmane Sonko président Macky Sall dafa pare Tek Bakanam, Tek Bakanam, pour que même mon bu candidat Ousmane Sonko bañ en 2024 Nous, ñu teg suñu téeméeri Bakan pour que Sonko uutu en 2024 en mars 2015 avons fait Karim Wade ko un candidat potentiel à l'élection 2019 redoutable candidat adversaire de Macky Sall exilé ko rendre inéligible trois ans après mars 2018 un candidat déclaré qui était en tournée de campagne Khalifa Sall nous avons ko rendre inéligible trois ans après mars 2021 ñu présence arrêté qu'il y a toroxal pour rendre inéligible la ferme volonté de dégager ce régime médiocre ce régime incompétent bandit et sadique pour tout ça a réussi pour certains de son dossier mu ngi toll ci càppaandaw ga maanaam cassation boo jaaxaanee waxuma la nekk candidat mais Barthélémy Dias risque même de perdre ses mandats de maire et député. Mimi Touré gën a déclaré candidature am le lendemain ñu gën a ko UGE 2 waaye tey ñu ne sa mascara sa truc de suivi dafay dem procès loo xamante ni. Il n'y a aucune preuve palpable bu ko mën prouver Mais nous, nous procès sama gars bu ñu nax suñu bu ñu nax bi lenn la condamné Ousmane Sonko rendre ko inéligible gannaaw bi réussir ci ñëpp waaye nag dégg suñu président mu président Ousmane Sonko nee na bàyyi naa sama bopp yàlla bàyyi naa sama bopp ndaw ñi ñun ndaw ñi ñu ne ko procès du am ndax sa candidature day jàll par ndaw ñi comme que président nee na daf bàyyee boppam ñun nee nañu ko Ousmane Sonko demoo fenn.

certificat médical qui dit qu'il n'y a pas de pénétration, qui n'y a que depuis Parallèlement, juridiquement, où on a un arrêté, où on a un arrêt de la Cour suprême, parallèlement, on a un arrêt de la Cour suprême qui disait que c'est pour un viol. Tant que conjonction sexuelle amoul, la première condition sine qua non, tant que l'on waxi viol lañ ko jël teg ko fële jëm a xool la première preuve scientifique pièce maîtresse pour prouver viol moy lan certificat médical koku ñom docteur bako ko saytu nee na phrase xëddéem y rien waaye dama né même bu yalla waccion wàccoon témoigner en faveur Ousmane Sonko procès lay am pour Macky Sall parce que bëgg-bëgg Macky Sall la

La vérité la vérité moy. affaire Adji Sarr voire affaire Sweet Beauté un côté de Bibo. Est-ce que le Sénégal acte quoi en mars 2021 Adji en personne acte ko à travers ses audios donc demandez, vous bu l'affaire affaire comme le président wax na je pense que on est assez majeur et vacciné et mine de rien ce projet là nous ko gëm nous ko gëm mën nañ ko dañ koy nous avons dans la peau Nous n'avons pas sauf dans le sang dama la médiocrité l'incompétence promouvoir sèche, promouvoir détournement promouvoir guerre guerre mauvaise gouvernance dama ne yooyu la jeex incha allahu rabbi incha allahu rabbi bu fekkente ni dama ne élection dem en 2024 amul président bu fi taxaw bu dul président Ousmane Sonko incha allahu rabbi ci kaw loolu nag may wax may wax ak sama morom yi parce que aussi bu ñu bëggee lu mu jaral waa ji mu jar ñu lu ko ëpp day fekk nag ñu taxaw ñu taxaw ñun ñëpp comme un seul homme Nous sommes comme un seul homme def bouclier autour de ce projet voyez, def bouclier autour de celui qui incarne ce projet Moussa oui on doit rester debout comme un seul homme et faire face ceci dit qu'elle nous nekk nous, aussi nombreux que nous sommes nous constitution nee na la boo nekkee ci ndooteel le devoir de résister ñun nak wa Pastef gëm sa projet dañoo nek ci notel Sénégal dafa nek ci notel et on est prêt à résister inshallah allahu et on va résister. on va résister. may wax ni amna ben projet bo xamanteni parti bi da ko décliné tuddee ko war ndomba.

Nous sommes tous les ñu uti carte électeur en 2024 même les yeux bandés toute la jeunesse sénégalaise votera pour le projet de poussoir même les yeux bandés ceci étant chers frères et chers sœurs Pastef nous lañ ko xamee Dans un discours sérieux rigoureux et véridique Pastef nous ngi éthique Pastef nous ngi travail ñu nga xam ne fraternité waaye un patriote un patriote gëm réew mi gëm Sénégal lépp luy taal Sénégal nekkuñ ci lépp luy taal Sénégal nekkuñ ci te ku jóg pour taal réew mi lañ jàkkaarloog yow dañoo gëm ne nag ce régime en place daa pare pour taal réew mi da lii may waral ñu fas taxaw temm résister ñu ngi jox rendez-vous ñëpp bàyyiwuñu kenn je répète